en fait dañuy waxaat tamit ci beneen mbir ba léegi si politique bi xam naa li ñuy def si émission bi bariwul mais dañu lay laaj Bougane Gueye Dany yow da nga wax ni Sonko moom mooy le leader incontesté moom leader bu taxaw moom moo taxaw mooy opposition mooy seen njiit waaye Bougane bi ñu ko posé question bi te journaliste dafa jaar sa tur léegi moom dani loolu waxu fictif la waruñu si basé wu yow looy looy looy looy tontu foofu. waa xam nga man sama axulaay taalaa rek laay wax man faruma ak Bougane faruma faruma ak Macky Sall faruma kenn li ñëpp gis li ni fang kenn du ko jeex jamono yee ca ginnaaw damaa waxoon opposition bi ni leen gaa yee jàkkaarloog yéen mooy ñi yore nguur gi coalition mburoog soow bi ña ngay gën a yaatu ña ngay wut seen i nit di yokk ña ngay yaatal seen géew yéen yaatal leen seen géew parce que ngeen yaatalul seen géew bis bu ngeen jàmmaarloog ñoom dañ leen di dañ leen dañ leen di rey kon nag man li ma jàpp mooy ñaari camp yi ku ci nekk da ngaa war a wut sa doole léegi nag loolu moo taxoon ba ma ko waxeet ma ni leen yéen problème bu njiit rek ngeen am parce que beneen camp bi ànd ak France ci intérêt France ak seen intérêt ñoom mooy camp wu président Macky Sall ñoom seen intérêt bopp leen fi nekk mais du intérêt réew mi ak intérêt France lool moo tax ñu àndandoo ak coalition bi yëpp ña ca bokk coalition mburoog soow bi moo tax sax ay bêtises rek la ñuy wax barki démb gis ngeen ay septal sall wax waxi waxi dof naan ay force occulte ñoo ñëw Sénégal ministre des affaires étrangères muy wax waxi dof xam nga fii ay forces occultes nekkuñu fi ay jeunes ñoo génn am lu leen metti ñuy ñaxtu am nun ko jaare mooy seen leader buñ jàpp ñépp xam nañ ne loolu la bañ ko bàyyee lépp dalaat na kon xam nga wax jooju waxi waxi kasaaw kasaaw la woon waaw loolu léegi nag ca laay profité sax bala maa daaneel ci loolu wax ne temps yi am na lu ñuy romandaat lu garaaw loo xam nañ ko arrêté mooy di jéem a gëmloo nit ñi ni Sénégal dafa am instabilité ak dafa am ay terrorisme yoo xam ñu ngi ko fi soupçonné Sénégal amul ay terroriste nañ bàyyi wax jooju te bañ a yee fitna gis naa ministre de l'intérieur wax ko gis naa ay Aïssata Tall Sall wax ko gis naa communiqué Benno Bokk Yaakaar wax ko yooyu c'est extrêmement grave nañ arrêté te maa ngi wax képp koo xam ne leader d'opinion nga Sénégal nga dénoncé li ñu bëgg a def buñ fi xëy mukk di jéem a tuumal ay nit naan ay terroriste lañ te terrorisme amul Sénégal fii li fi nekk mooy ñoom ñoo lajj juróom-ñeenti at ñu jox leen réew mi yoruñu ko ba nit ñi mere leen nit ñi bàyyi leen nit ñi guqi leen kon nag nañ mere seen bopp te bañ a tuumaal nit ñi naan ay terroriste ñoo ñëw Sénégal benn terroriste amu fi même Ousmane Tounkara ni jéem a tuumaal terroriste ca États-Unis du terroriste daa toog États-Unis de wax li mu xalaat ci réew mi mën naa juum nag ci ni mu koy waxee parce que nit la gis nañ àll yi démb Rousseau wax ne nañ génn jaas yi xeex. pour téye fi nguurug président Macky Sall kon nag man jàpp naa ne Ousmane Tounkara la mu wax même bu fekkente ne juum na du terroriste nañ bàyyi waxu caaxaan yi terrorisme du caaxaan suñu réew bu ñu ko yàq bu ñu yàq réew mi réew mi réewum jàmm la mais nag ku ñu ko jox nga dem ba sa nguur jeex da ngay dem ci jàmm mais doomu jéem a yàq suñu réew donc président Macky Sall na arrêté ay nitam bu dee moom nekkul ci ginnaaw lii ñuy jéem a rumata c'est la même chose aussi li Madiambal Diagne wax Madiambal Diagne di jéem a andi bot di compter xeet loolu Sénégal xamu ko. naan ay tel ministre joolaa la nan ko dàq parce que ci coow lii kaasul pour pour pour attaquer Sonko mais pourquoi muy attaquer Sonko c'est pas parce que moom dafa nekk ci Macky Sall que lay attaquer Sonko lii ab complot leer la képp comme fu la duggoo ci même avocat yi nangu ñoo défendre Adji Sarr benn avocat woyaa woyaa rek la am beneen avocat ba mu am nangu cee feeñ. dama ne man xam nga dama dama on ne tire pas sur une ambulance man li ma gëm. mooy nañ bàyyi seen wax caaxaan yooyu Madiambal Diagne ce qu'il a dit c'est extrêmement grave et je dénonce cela avec la dernière énergie réew mi xamuñu bopp di compter man mii def naa juróom ni at Casamance dafa jàngale ca lycée Aline Sitoé Diatta boo ma daan fekk seen biir doo xam jolo euh, doo xammee joolaa bi doo xammee wolof bi doo xammee séeréer bi lépp am Casamance man mii ba ma fay nekk quartier yu da gis quartier bi lëm boo xam sax duñu ay joolaa te ci biir Oussouye laa nekk donc de la Casamance kon nañ bàyyi bord de Comté bord de Comté boo demee Casamance doog fa sentir au contraire boo fa nekkee sax yow la ñuy tatagal teg la ca kaw kon nag il faut ñu arrêté Madiambal Diagne naa kaa arrêté loolu waa Benno Bokk Yaakaar mais gaaw ci communiqué dañ def communiqué dénoncer les propos de Madiambal Diagne voilà nga xam ne c'est un journaliste boo xam opportuniste ci intérêt rek lay dox lépp lu mu wax ci intérêt la koy def amul lenn lu muy wax ci intérêt Sénégal donc loolu c'est des discours dangereux qu'il faut arrêter parce que baaxul ci sunu réew ñun jàmm la ñu xam. joolaa yeeg wolof yi ak séeréer si ak ak pulaar ñoom ñépp benn famille lañ. loolu moo am Casamance parce que man am na xam naa ci dara parce que def naa fa juróom-benni at Ousmane Sonko kenn gënu ko nekk sénégalais dafa nekk sénégalais comme tout le monde la Casamance fait partie du Sénégal Sénégal kenn mën koo xar ñaar kon nañ bàyyi ce discours la dangereux vraiment c'est c'est regrettable mu jóge ci koo xam ne dafa jàppe boppam ne kilifa la kon Madiambal Diagne encore une fois te moom il est trop petit de de de parce que ku ne xam na. nan lañ ko dàqee ci justice ba mu doon liggéeyee en tant que greffier bu ñu taxa wax kon na arrêté moom ma Madiambal Diagne na ma intérêt mu warut tax muy jéem a muy jéem a wax loo xam day taal réew mi donc yii ñuy jéem daal ñaar yi mooy andi ay wax waxu xeet pour taal réew mi wala andi ay jafe-jafe Sénégal wala di wax waxu terroriste pour andi ay jafe-jafe Sénégal ñaari ñoom ñaar ñaari discours yooyu yëpp nañ ko arrêté te président Macky Sall encore une fois réew bi nañ la ko jox ci jàmm nee nga ñetti at la dese. mënatoo nekk candidat xam nga ko te wax nga sa discours mujj ne ñetti at la dese te mu soo wax ne da ngay def troisième mandat euh, euh, euh, na nga fexe ba pare sa mandat ci jàmm soo paree sa mandat jàmm nga organiser élection yi leer dem sa yoon képp ku sénégalais yi wóolu ñu jox ko réew lii mooy dëgg teñ ba na andi fitna sunu réew parce que réew mu teraanga la réewum jàmm la kenn waru fee andi benn bot di compter ak bu mu mën a doon. alors dañuy ñëw ci élection locale yi. démb euh, yóbbu jëbal nañ kayit bi nga xamante ni moom la ñu war a voté projet de loi bi pour ñu renvoyer li nga xamante ni moom mooy élection locale yi ba deux mille 2022 février loolu noo noo ko gisee ñetteelu yoon ñu koy renvoyer nii tam. mosul am ci Sénégal li ma xamoon man reporté bi ëpp Sénégal bi ñu am ñaar la woon mais ñett dafa bëri même ñaari yi mosuma ci woon d'accord man mais président Macky Sall moom actuellement dafa ragal a dem élection il faut sénégalais yëg ko président Macky Sall dafa ragal a dem élection parce que xam na ne bu demee élection ci contexte bi ñu nekk nii Sénégalais yi duñ ko voté dafa nar a def cohabitation xam nga luy cohabitation mooy ñu dem assemblée nationale boo xam ni euh, moom du contrôler assemblée bi du fa ëpp lay député wala mu dem ci ay collectivité locale bu dee élection locale mu mu ñàkk collectivité locale yi ëpp ba te collectivité locale yi boo leen ñàkkee ñàkk assemblée nationale presque jiiteetoo réew mi maanaam ab président ngay nekk nii rek def euh, pour la forme. parce que soo soo jiiteetul gox-goxaan yi jiiteetoo euh, penc euh, pencu ndawu réew mi man jàpp naa ne jiiteetoo réew mi loolu la ragal loolu tax bëggul organiser élection yi parce que ñëpp xam nañ ne président Macky Sall moom ci xelu sénégalais yi wàcc na wàcc bu metti sénégalais dañ koo mere moom xam na ko il a tous les renseignements xam na ne sénégalais yi dañ ko mere bu ñu fi demee élection même bu fekkee fichier baaxul parce que man fichier bi wóoluwuma ko. waaw loolu la ñu wax ñu ni fichier bi la ñuy càmbar te bu laajee Cheikh Sarr moo ko wax moom moo jiite woon euh, nguur gi moom moo yoroon porte parole nguur gi ci mbir moom ci waxtaan bi moom nee na bu dee fichier bi jar na ñu càmbar ko même ba un an sax dañ koy def est-ce que nekkul loolu tamit man man damaa bëgg d'abord fichier bi nañ ci wax ñun d'abord la coalition citoyenne le peuple ñun dañoo am expert international boo xam ne ci fan yi dina def ak euh, ñun benn lël boo xam ne daan wane ñun fichier bi lan mooy. pare ngeen lan mooy jafe yi. on a on a un expert international loolu maa ngi koy wax ci kanamu sénégalais yoo xam danañ def benn atelier du yàgg boo xam dina wane rëq-rëq yi am ci fichier bi mais fichier bi musta baax man dama ko yàggam président Macky Sall bi mu ñëwee defaraat carte d'identité yu beesam yii nga xam ne amul sax filiation say waajur boo ko présenté nit danaa la sa baay ak sa yaay nu mu tudd xam nga waxu caaxaan yooyu xam nga ci carte d'identité nga am day wane li nga xam ne yow lépp mi nga mooy mooy mooy sa identité loolu boobu koy def booba galgal bi mu doon def mooy defi pexe pour. carte électeur bi mu man koo jalgati pour ci intérêt am région yoo xam ne bariwuñu ay nit mu yokk leen ay nit parce que jàpp na ne moo fay gañe yooyu moo nekk ci fichier bi fichier bi fiabulul fichier bi bu ñu ci demee élection lu ko neex man na ko cee def naam même avec ce fichier là day am jafe-jafe ma Macky Sall mais man li ma gëm mooy fichier bi bu leeree naññi président Macky Sall même bu ñu ne ko woon kaay nekk candidat du nekk candidat bis bu fichier bi leeree ñu jox ko loxo yu ñu jox kii organiser. mu bañ a nekk ci contrôle président de la république ñu def une commission indépendante pas ay commission wuyaa wuyaa boo xam ne moom dafay am représentant parti politique am fa représentant société civile am fa représentant te ñoom ñëpp kenn du leen contrôler loolu bés bu amee président Macky Sall bu demee élection 20 pour cent sax mënu ko am man loolu laa gëm donc loolu moo tax ma jàpp man ni euh, fichier bi jar na defar mais nag lu mu jar a jar a defar man jàpp naa ne ñetteelu rapport bi ëpp na. mënoon nañ koo defar ci lu gàtt parce que ñun nee naa la am nañ expert yoo xam nee nañ soxlawuñ sax lu ëpp un pour càmbar fichier bi defaraat ko mu baax ñi war a inscrire inscriraat ci délai bu gàtt ñu dem élection. ci 2021 bii mën nañ cee dem élection ver décembre. c'est possible mais daal en fait bi dañoo jubóowul. ñoom loolu lañ loolu lañ prétexte boobu lañ jël. xam nga waxtaan woo xam ne dañ naan dialogue bi président de la ne yabal fa ay nit opposition ba yabal fa ay nit bu ñu waxtaanee bu ñu déggul moom mooy àtte loolu kay leer na parce ñam fa yabal moo leen di wax la wax ñun xam nañ man des Sénégal damay toog a càgg man vraiment layam layam ji nekk ci suñu réew mi man vraiment dafa may déranger ko def donc report euh, élection législative yi en deux mille vingt deux dafa ëpp dafa ëpp te man li ma gëm mooy ñeme naa ñëw sax reporté waat ko de gis nga président Macky Sall ñeme na ko jéem a couplé ak élection yi. ñeme na sax pousse élection présidentielle 2024 yi. ñetti at moo ko dese loolu dina. loolu da koo wax rek pour pour pour sëlëm ñu man li ma jàpp mooy président Macky dafa yolomal ngembam mais tekkiwu ko xam nga ma gëm mooy élection 2024 yi ñeme na koo pousse parce que président Macky Sall parewul parce que moom moom mënta nekk candidat mais ka muy samp il faut mu préparer ko man jàpp naa ne moom bëgg na yokk nguuram sans mu dem élection loolu nu mu koy defee mooy day yokk euh, day day yokk délai bi. au lieu mu nekk 2024 mu yokkaat ci benn at wala benn at ak genn wàll wala ñaari at loolu dana ko jëm oo oh, oh, li nit ñi naan ay troisième mandat lay wut man jàpp ma lool président Macky Sall yokk par exemple ak procédure yaag recours yaa et cetera mu des un an un teg pour ñu dem élection présidentielle mu ne voilà gis ngeen délai xat na fi lay bàyyi leen ma puusaat bu ko defee mu yokkaat mandaam nga xam ne xam nga 5 ans am bu ko yokkaatee mën naa pousse ba amaat benn mandat sept ans encore bu ko defee boole kook sept ans mi njëkk muy quatorze an muy doog a dem man jàpp naan loolu lay loolu lay pexe loolu lay jëm moo tax pousse yi mu ci génne élection présidentielle yi tuddaguñ ko mais ca la jëm